saf moom nga ne la Sénat réglé. un cour suprême de Ndiundiak. waaw mais nag <laughs> pour un peu euh, créer euh, nu mu leeral génne peut-être loo xamante ni mën na susciter amalgame euh, waxuma cour suprême donc il est question de un cours. avec S la <laughs> waaw donc. maanaam li ñu <laughs> suprême de Ndiundiak lañ ñu le président jox ci affaire ci comment dire renouvellement. Euh, bureau Sénat. waaw ah, nag nit ñi fàttaliku nag maam Birame professeur nga. <laughs> dëggal xam nga xam nga xam nga euh, man dama toog ba di wax ci Doudou Ndir di wax ci Doudou Ndir ba yow sax nga may toojee. <laughs> <laughs> côté Doudou Ndir bi président jëlee euh, le décret là bi communiqué bi génnee ñu ñuy xamal ne Doudou ndiir tëbal nañ ko. j'ai reçu à travers Facebook Messenger. Mm-hmm. ay. sept message ñu naan ma <laughs> sa wax jee tax dundee ñu jëlee ko <laughs> ma ma leen ah de toutes les façons xam naa ne du loolu mais bu dee loolu la sax man kontaan naa ci mm-hmm. puisque eh, quelque part euh, euh, yow Sénégal sur le principe rek xadisi laa mm-hmm. ñu ne la Sénégal euh, ndaw ñi maanaam ñi amul trente cinq ans il constitue près de soixante dix pour cent de la population wala sax plus mm-hmm. léegi loolu su amee ça veut dire que ni ñi nga xamante ni ñu ngi aspirer à gérer des fonctions noonu la ñu bëree léegi nga mën a jël benn pas boo xamante ne nii retraite ba nga koy nommé déjà dafa retraité dafa retraité ba nga koy nommé nga téye ko foofu téye ko foofu onze plus de onze ans après muy occuper la même fonction comme si quelque part Sénégal amul ñeneen ñoo xamante ne nii war nañu occuper mhm. le même poste au moment où ñu ngi naan population presque treize millions yi kenn amu ci trente cinq ans seulement euh, bu nekkee ne euh, président dafa constaté ne jusque là le Sénat la Sénat du moins dafa nekk dans l'illégalité hmm? mu jàpp ne puisque dañu ne euh, les membres du de la Sénat <laughs> soo nommés pour six ans ñu ne yow soo par exemple Khady la membre Sénat la démissionné na comme ni Moustapha Touré defoon man su ma ñëwee remplacer ko dañuy xool yow ñaata temps nga fa defoon bu nekkee da nga def quatre ans man su ma ñëwee di la remplacer deux ans laay def. Mhm. bu nekkee cinq ans nga def man su ma ñëwee di la remplacer un laay def tout comme bu nekkee un nga def man su ma la remplacer cinq ans laay def ce qui fait que. Euh, comment dire bu nekkee ne euh, yow dama la remplacer fekk yow boobu def nga trois ans parce que euh, non euh, trois ans. Mhm. Euh, man su ma yegsee trois ans yooyu laay def donc trois ans yooyu mu ngi waroon a jeex à deux mille onze. Mhm. deux mille neuf la ñëw deux mille dix deux mille onze normalement pare woon na ci. Mhm. le président Macky Sall puisque Doudou Ndir mu ngi def loo xamante ne ni arrangé na ko mu gëmm waxul dara puisque jàpp naa ne Sénat bu doon def liggéeyam comme nu mu waree. Mhm. élection 2017 yi gis nga ce qui s'est passé Touba daanaka kenn voté wu fa. saccagé bureau de vote yi près de mille bureaux de vote yoo xamante ne ni Touba daanaka. kenn voté wu fa. Mm-hmm. mais teewul ñu entériné résultat yi ba ne Benno Bokk Yaakaar am na cent vingt cinq députés gagné référendum bi également parce que scrutin la. Mm -hmm. président Macky Sall la ñëw le le kañ daanaka daal bi muy wax bi muy annoncé nit ñi février euh, dëggal euh, référendum mars boobu. vingt jours la jox sénégalais pour ñu préparer wu. Mhm. maanaam tey la euh, euh, comment dire tey la huit novembre mu ne sénégalais le vingt huit novembre dinañ def référendum. Sénat ne mukk ne pat waxul élection présidentielle yi passé deux mille dix neuf gis nañ également tout ce qui s' est passé. ba non nga ñëw sa bureau de vote boo doon voté plus de cinq ans ñi ñëw ñu ne la sa tur nekkul ci liste bi. bu doon loolu la sax xadisi laa mu neex bu doon loolu la sax xadisi laa mu neex mais dañu dem ba génne ay image yu ñoo xamante ne nii amuñu euh, boo leen gisee rek de de par leur apparence nga xam ne ñii amuñu age de voter ñu gis leen ñuy voter boobu ono <laughs> <laughs> fële ca au Togo <laughs> bu nekkee ne loolu am na euh, euh, parti politique bi nga xamante ni engagé woon na ci moom xëy na am na responsabilité peut-être am na intérêt à ce que loolu ñu leeral ko mais ki nga xamante ne nii moom dañ koo teg en tant que institution te nag xadisi la képp ku la ne euh, euh, comment dire Sénat euh, comment dire mën nañ leen a influencer wala mën nañ leen a def loolu lu ñu bëggul c'est parce que dafa liiru texte yi képp koo xamante ne nii bëgg nga Sénat nga nekk Sénat indépendant totalement du président de la république d'un ministre de la république d'un député ak ku mënti doon texte yi may nañ la ko. boo nekkee membre Sénat. boo nekkee membre Sénat à personne. ma parce que dañu ne yow ci sa six yi kenn amul droit jëlee la fa en plus de ça ñu ne Sénat dafa am autonomie financière maanaam bu bu at mi jotee. comme ni ñuy defalee ni ñuy defalee assemblée nationale voilà defal ko yeneen secteurs yi noonu lañuy ñuy votelee également Sénat budget nga xamante ne ni du dee dañuy bëgg a def benn mission quelque part di daw ci ginnaaw kenn koo xamante ni mën na leen koo financer. maanaam donc euh, euh, euh, Doudou Ndir moomu amoon na ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal amoon nañ possibilité respecte loi bi comme cela se doit de sortu que bu ñu demee ci ay élections bu ñuy waajal ay élections ku toll ni ku mel ni premier ministre du ne y aura cinq candidats moom cinq candidats. du am euh, comment dire un premier ministre ñu voté ba sa ngoon nga mu ne dinañu gagné au premier tour avec cinquante huit pour cent des voix. Mhm. mu demee noonu. mais bu bu ñu weesoo yooyu yëpp ñu jël élection yi nga xamante ni ñoo fi mujjee passé di élection locale ak élection législative gis na ñu ni état bi doxalee maanaam def lu ko neex loo xamante ne ni amul te <laughs> li gën a garaaw ci régime bu président Macky Sall bi te loolu xam naa il faut que ñu ñëwaat ci xadisi la muy lan héritage bi ñu Macky Sall nar a bàyyil parce que xam nga en matière de loi lépp loo xamante ni wax nañ ko ba tënk ko ba nit ñi doxalee ko mën na constituer une jurisprudence maanaam dans dix ans bu affaire bu mel noonu xewee. Mhm. dañu naan comme que amoon na fi nañu def euh, euh, comment dire. ba mu xewee. ci jamonoy mag très bien kon maa de looloo tax Bougane daal di génn dina consulter ay experts. <laughs> non <laughs> moom maa ngi ñëw ci kaw maa ngi ñëw ci <laughs> ci ci ci moom na parce que yow boo nekkee candidat à l'élection présidentielle yow waxuma candidat à une de waxuma mhm. candidat à la députation mais candidat à l'élection présidentielle nga ne tu es un candidat sérieux normalement da nga war am une équipe bu la wër boo xamante ni ñii seen xel day wal day màcc ci wàllum droit. ñi très bien et cetera mais yow nga nekk candidat à la présidentielle di daw di wuti expert yu la gindi kooku ça veut dire que ne moom pareegul <laughs> mais dans tous les cas on va y revenir pour dire que xadisi euh, la mm-hmm. euh, donc élection yii nii passé ma ne ñu jël liste dagg ko ci digg bi maanaam ñu def benn liste ñaari liste ne bii mën na dem beneen ba xaar noonu la ñu écarté Ousmane Sonko kenn ak ñu mu àndal ñoom Déthié Fall ñoom Khalifa Sall et tout ça Khalifa Sall boobu sax éliminé woon nañ ko <laughs> comprendre donc ba loolu amee acteurs yi ñoom ñoo ko doon jéem a lijjantil seen bopp. Mhm. di dem ay cour suprême ak a ñëwaat. kenn déggul Sénat comme si la Sénat n'existait pas. Mhm. alors que en réalité role bi nga xamante ne Sénat daf koy jouer. mais c' est un rôle fondamental ci wàllum élection. waaw nee nañu ne Sénat day participer au début à la fin du processus électoral ba proclamation des résultats. te te nag nekkul loo xamante ne ni dañoo jékki-jékki rek teg ko loo xamante ne ni la ay combats et des combats Abdoulaye Wade li tax en mai 2005 mu entériné ko boobu fekk onel amoon fi. c' est parce que opposition bi moom en tant que opposant d' abord moo doon exiger ci régime Abdou Diouf ñu teg une structure boo xamante ne nii ñu koy composé dañuy indépendant mu mën a saytu élection yi di jouer rôle arbitre Abdoulaye Wade moom la daan sàkku bi muy nekk opposant <laughs> nga gis une grande différence rek entre Wade ci ak Macky Sall sur ce point là yow nga nekk opposition di kaas lenn nga ñëw au pouvoir Abdoulaye Wade bi mu koy kaas mu ngi opposition bi mu ñëwee au pouvoir cinq la def teg Sénat loo xamante ne nii. mooy bëggu-bëggu moom ba muy nekk opposant loolu doon jooy uh-huh. contrairement à Macky Sall nga xam ne da daan kaas lenn bi muy nekk ci opposition bi ñëw au pouvoir am possibilité def ko gën a ñaawal lam daan kaas uh-huh. léegi bu nekkee euh, Sénat boobu toog nañu quelque part organiser ay élection yoo xamante ni am na toute sorte du ma wax sax clic ku kuwaak mais irrégularité laay wax irrégularité yu ne am ci kenn déggul Sénat ba ci euh, révision des listes électorales yi passé mhm. nga xamante ne ni chaque année à partir euh, du du du du premier juillet dañuy ubbi fichier électoral bi de sorte que képp koo xamante ne ni atteindre nga say dix-huit tey dix-huit ans nga mën a ñëw inscrire ñu ne un mois la ñu ko def ñu ne un mois la ñu may sénégale yi bëgg a inscrire ñu inscrire xam nga arbitre bi arbitre bi Sénat au lieu que mu taxaw mu ne période de révision bi un mois ça ne pas suffire pour permettre aux jeunes de s'inscrire mais xam nga lan la def xam nga Sénat lan la def Doudou Ndir bu mu defee bu mu defee le tour des centres d'inscription lu mu wax mooy ne dañuy ñaan commission yi ñuy dem de la de dix huiteurs pour permettre rang bi nga xamante ni dafa gudd nit ñi am accès inscrire. ñaan ñaan ñaan te moom mu bokk ci ay prérogatives am mu war a euh, exiger ñu prolonger. ma ngoog moom muy ñaan. c'est parce que man dama jàpp ne loolu yëpp su ko dundum ak équipe am sëggee c'est parce que dañoo xam ne fi ñu toll ni ñoom ñu ngi dans l'illégalité parce que bu nekkoon <clears throat> ne par exemple Doudou Ndir mu ngi ci biir mandaawam Sénat bu mu jiite am na indépendance am am na autonomie financière am xëy na nii mu doxalee nii sëgg bëtam gëmm ne gisul du am mais c'est parce que justement xam na ne nekkatul ci mandatam xam na ne il exerce dans l'illégalité moo tax yu bëri mu sëggoon ci jour ba mu siggee lan moo xew. la lan moo tax sax mu siggee lan moo jékki-jékki rek mu ne dama dama damay tegwaat ci raay bi.